ndeysaan kon na combat bi démarré na ndef leen ak tey mu neex tey mu neex ndef leen moo leen féete càmmoñ ñaari pied gauche ndef leen moo leen féete ndeyjoor ngemb lu noir takkul dara tey mu neex a nekk seen càmmoñ takkul dara takku lu xonk lu ca baba bëgg mbapati daa mel ne tey mu neex ak ndef leen soobu na la ba yor na yor na tey bu neex na ko sol ndax da koy laal. Ah, waaw na ko col. lu muy def jàppante nan diggante sanq bu na ma. waaw ak Ndefleng. bëri semaine weeru daan ci bëri téeméeri combat. mu neex jàppante nan te bu ci dee daanu juróomi yoon lay doon moom papa yi Ndefleng. moo ma ko wax léegi fee fee. kon loolu ay épreuve de force ma mbokk. ay mbër lañ. Jurbel da koo yaakaar rek. waaw lu waay def la yaakaari yi la bokk. ci la bokk ci la bokk. ndax gis naa bi muy ñëw a ah. li ko gunge. fii ci stade Ely Manel ah, Fall Sidi Diakhaté woote fi promoteur mag bi ay kilifa dong la. man de keroog moom ma mbër mi dama ne leen kii ba mu fu mu jóge waaye mbër a ngi nii. mbiri suñu borom la boobu xam ne daanaan la ndeysaan. ku ko ah. xam ni mbër mi waaw dëgg la jekk doole doole doole. doole doole doole doole. ndef rek daan na ko jël bu rëy doole doxul jàmm. lamb ji méttiwut sax ci moom. doole doxul jàmm xam-xam xam-xam.